jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. cant ak ngërëm ñeen na leen mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bile xibaar yi dañ koy tàmbalee wàllu politique caravane bu coalition Diomaye président dañu leen rekk daal di songu nag foofe ca Kaffrine ak ca Nioro ginnaaw rek ñoom kon bi ñu demee nag di woyal seen campagne bi ñoom candidat Bassirou Diomaye Faye ak ñoomu àndal ca Medina faa convoi bi nag ma nga doon dem ñu ni kon ca Ndoukoumane ca noone kon lañu rek leen daal di rek taxawal daal di dal seen kaw waaye nag ñu ni sax nag nervi yi nga xam ne ñoom ñoo fare ci APR ñoo def li nu mel ndax ñoom nag ñoo ñëw doon saboté eh, seen nag convoi bi ca noonu lañ la doon sànnante ay xeer ñu bari sax daal di daw waaye nag laata loolu kon songu nañu eh, seen siège bu Pastef bi nekk ca Kaffrine ñu ni sax daal nañu yàqate li nga xam ni eh, moom moo nekk ci biir bâtiment ba Guy Marius Sagna di xamle ni njiitu réew mi def na itam ñaari discours yoo xam ni nag mi ngi xaar ndax nag ba ca njëkk bokk na ci bi muy rekk daal di félicité Diomaye ginnaaw bi mu nekkee juróomeelu président bu Sénégal beneen bi itam rek bokk na ci la muy félicité beneen candidat waaye na jàpp ni kon du candidat ndax du Amadou Ba ndax mënul gagné rek réew mi loolee na ko xam te duñu nangu itam coup d'état électoral benn yoon ci ñaar fukki fan ak ñeenti ci weeru mars atum 2024 ni itam coup d'état militaire consécutif jëm rek ci occasion yi nga xam ñu bëgg mooy ndamu Bassirou yi Faye ñu daal di ko yëkkati ci kaw kon mu nekk juróomeelu président patriote yépp kon daal di rek am ndam ci premier tour bi.